ñu tàmbalee suñuy kàddu ci musulu seytaane tàmbalee ko ci suñu borom te sant suñu borom moom mi nu may ñu dundaat at ba teewaat fii di waaj bés bu màgg boobu nga xam ne ni ko ñi nga xam ne ñoo ma jiitu waxe euh, dana néew ñu gisati jëf ju kawee noonu te jàpp nañ ne dootuñu ko gisati ci àdduna kon dafa mel ni koo xam ne kii sunu borom dimbali na la ba nga comp ci wala bokk ci ñu ne la yaa ci yore lii rek yorel nga cant njëkk ña ca boole kon mënumaa dugg ci kàddu gi ndax bu ma ko defee duma ko te ma ñi ma ci boole ñi ma ci boole mooy kan kenn mooy sëñ maxtaar bi nga xam ne moom lañ ko dénk ndax yàgg naa ñëw mën di julli si ci géej gi di julli géej gi eh julli si géej gi ëpp na di julli di di fekkee fàttaliku julli géej gi waaye damay ñëw ni taalibe bu ne rek daal di julli daal di dem te am doonu ma ci woon dara moom nag mu toog ba xelam daj mu waxtaan ak koo xam ne sama xarit la sama mag la muy sëñ ma dikke ñang mu ne ko ah kooku de xame naa ko ne am na Pastef moom it mu defee jëfe ndigal loolu ba dugal ñu ci kon loolu balaa may tàmbali wax toujours danaa ne loolu moom la ci dugal pour nit ñi xam lan waaye du sama du sama Pastef du du sama xam-xam du dara xam-xam indiwuma fi ñooñu ñoo ma dimbale rek maa ngi leen sant suñ maxtaar maa ngi lay sant bu baax a baax a baax bu loolu weesoo nag dafa mel ni euh, ren jii lu bari jóg na ci di laaj lu tax ñuy def màggal yu mel nii di dajale nit ñi ñu jóge dëkk ba dëkk ngir julli loolu nag euh, li ci tontu yomb na lool suñ demee wax na jarul sax mën a wax xaala ak xiila déedéet benn tontu doy na ci mooy sëriñ tubaa Cheikh Salim Mbacke Ibn Khadim Rasoul moo ñu ko digal ñu ne lool ñu ne loolu doyul de ñu ne déedéet ñu ne ñu ne doomu Serigne Touba Mouhamadul Mourtada jiite na ko loolu bu doyul ci tontu nag xamatuma leneen lu doy ci tontu ndax ñoo ñuy tudde ñun doomu Serigne Touba de bi ñuy wax niñ jàng bi ñuy wax naan. borom xam-xam yi ñoom ñooy ñoo doon yonent ñooñu ëpp nañ boroom xam-xam kon ñooñu ñoo ñoo gën a ñoo njëkk a doon yonent balaa kenn di ko doon kon lu ñu defee rek ñooñu lu ñu jëfee lu ñu digale rek yoonal yoon la lu ñu jëfe it yoon kon nag loolu moom leer na nañu ne li ñuy def ak fu leer lañ ko teg ci ndigal te ñuy def it roy nañ ci ku ku wóor muy sëñ Mouhamadou Moutada kon ñun li ñuy def aw nañ ci yoon li nga xam ne nag ñun bi nu fii suñu borom boolee jéem nañ waxtaan ak kuréel bi ngir mu gën a jëm kanam mooy fexe rek ba bés bu jot rek nanu koy defee rek li ñuy wax organisation gën a taal te loolu la ñaan rek toujours bu ñuy wax suñu appel ñi ñi dimbalanu ci ndax loolu kenn mënu koo def yow kese déedéet da ngay naan kañ lii laa ko nase waaye nit ñi jàppale nañu ci ba mu nasoo noonu waaye nit ñi buñ ci jàppul loo sa xel lu sa xel rafet rafet rafet sa organisation de rafet kon toujours bu ñuy ñëw ci appel dañuy wax jàpp ne murit yëpp ñooy organisateur kuréel bi ñun dañ leen fee teewal dong waaye murit yeeg jullit yëpp ñooy organisateur loo organiser nag xam nga boo ñëwee da ngay bëgg mu rafet kon li ñuy sàkk mooy ku yegg si rek jàppal sa bopp ne man mii organisateur laa du Mamadou Ndiaye du masaat Diouf du Babacar Xuma ñooy organisateur man mi sama bopp ma ñëw man organisateur la kon man ci sama bopp it may njëkk a bëgg mu rafet la koy rafetal nag ñun am nañ luñ ci luñ ci luñ ci jéem lan tijjee mooy lan mooy li ci njëkk mooy fexe ba soxna yi ak sëriñ si fi ñuy jullee wuute ba ñu ñii di julli soxna yi julle fii sëriñ si julle fii mu rafet mu dëppoog li lislaam bëgg loolu jéem nañ ko daaw suñu borom jàppale ñu ci la ca tege nag mooy toogaayu nit ñi bu nu jullee ba pare toogaay ba fexe ba ku nekk xam fa nga war a toog nga toog fa mu rafet jekk loolu am na lu ci sooxe daaw waaye ñoo ngi leen ci ñaanal ren ngeen jàppaluñ ci mooy lan mooy ngir bëgg ñu xam ñan ñooy mën a toog fii ak fee ndax toogaay ba turbine mënu ci ñàkk comme turbine am na yi tamit ñëpp xajuñu ci turbine loolu moom buñ sañoon ñëpp toog ci turbine ba waaye ñëpp xajuñ ci turbine comme nag faaw ñu am ñun jàpp ñi ñu xam ne ñu ngi bëgg a ñëw wala ay kilifa yi ñu xam ñu ne ah ñii kat suñuy kilifa lañ kilifa boo xam ne nag bu toogee ci kaw nga toog ci suuf kon kenn nangu mu toog ci turbine nga toog feneen kon looloo waral ñu def turbine ba ngir jàpp ñi nga xam ne ñi mënuñoo leen a ñàkk a teg foofu ñu toogee ak ñi nga xam ne ñoom la nguur gi yónni ndax ñoom dara jooju moo leen ko jox looloo tax ñu sàkk nag ay carte yu mën a tax ñu xàmmee ñu yéeg ña fa mën a yéeg loolu dong la defuñu ko ngir xàjj de mais dafa mënta ñàkk ci organisation waaye nag bu ñu nit ñi jàppalewul itamit du sotti mukk ndax yor yorul carte yëglu woo waxoo dara ñëw ba taxaw nekk ne da par force danaa dugg danaa yéegi tamit loolu mooy indi coono loolu rek la ñuy dimbal ñaan koo xam ne kii tribune ba war nga fay il faut que nga jokkoo ak kuréel gi carte yi jaayuñu ko euh, carte yi joxewuñu ko ci discrimination ku koo xam ne kii yàlla nga ko boo ñëwee laaj ko daan la ko jox bu ko defee ku ne yor sa carte nga ñëw ndànk dem toog fa nga war a toog ñu déglu kilifa yi déglu ki nga xam ne moom lañu sëriñ bi booleel mu war a ñëw ndax buy wax wax ji mën a tey ñu mën koo def ci defin boo xam ne bii dana tey ci ñëpp. bi euh, wax nga nu ni nu bëggee euh, événement bi doxee ci wàllu carte invitation yi ndax euh, woote murit moo bindoo noonu bu ko ñëpp bu ñëpp jàppee ni ñoom la ñuy liggéeyal rek ku ñëw da nga indaale maanaam li ñuy wax defar. maa ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp bakk Cheikhul Khadim Euh, sama wax nag du ci du ci gudd ndax dëgg fa yàlla li ñu waroon a wax yëpp góor yàlla yi ma jiitu jaar nañ ci jaar nañ ci euh, histoire u surtout histoire u màggalu julli géej gi histoire nag dafa am solo ci nit histoire dafa am solo ci àdduna ndax ci histoire ngay mën a sukkandiku pour xam sa ëllëg màggal gi yàlla dogal na am na histoire ñu baax ñu jaar nañ ci léegi waaye man histoire am dama ko bëgg a tënk ci ñaari kàddu kàddu yoo xam ne ku ko dégg danga xam ne lii du saayir bàttin rek la maanaam ndam li nga xam ne am nañ ko du saayir bàttin la kàddu bi njëkk mooy keroog ba ñu demee ci Cheikh Saliou Mbacké yal na suñu borom yokk leeram xaadimu rasul ñu toog tàkku saan mu génn ñu toog nii ci wetam mu xool ba càgg ne ana waa géej gi ñu ne ko Mbacké ñu ngi ni mu ne jege si leen ñu jege si bu ne yéen de lu bu ne Sëñ Tuubaa nangu na seenub liggéey loolu histoire la ci màggal gi màggal gi am na boobu histoire eh, ñaareel ñaare ñaareeli wax ñaareelu kaddu nga xam ne mooy ponk histoire màggal gi eh, ndax yàlla dogal na depuis vingt quatre ans ñu ngi koy ñi ngi koy màggal te ñu ngi fi woon mooy ba mu ne bis bi def leen ko bisum ndakaaru xam nga loolu nit ñi dañ ko ñi déggu dañ ko xaw woyefal waaye bisum ndakaaru du lu daw ndax def leen ko bis bu ndakaaru mooy lan ci déggin mooy 21 septembre fii ci ndakaaru dana jamono dana ñëw benn imam rek a fi am tàkkusan nga xam ne képp kuy jullit ak taarixe boo mun di bokk da nga ñëw ci gannaaw imaamu Cheikh Ahmadou Bamba nga julli tàkkusanu 21 septembre maanaam li ñuy wax ne ku tedd kii dafa yëkkati baat bi ca kaw a kaw a kaw nga xam ne allah kulli alin dana ñëw waaye xëy na suñu set yi ak suñu setaar yi ñoo koy ñoo koy indi waaye incha allah rabbi dina ñëw euh, kon nag <clears throat> màggal gàngoog am nañ ci ay ndam yu bare bare bari dëgg la du ñàkki nag ay jafe-jafe waaye boo ko seetee at mu jot dëgg fi àlla day gën a yokku ci ci ci qualité euh, niñ ko waxee léegi daje nañoo ak euh, gouvernement euh, waxtaan nañu waaye it foog ñu fàttali suñu daje bu njëkk ak gouvernement ci biir ci année daaw loo xam ne itam bokk na ci histoire màggal gi mooy atelier bi nga xam ne defoon nañ ko te le président ngi nii Cheikh Matar Diouf jiite ko gouvernement du Sénégal moo ne <coughs> te mos am dans l'histoire yéen màggal julli géej gi ñëw leen ñu def benn atelier mu ak ñu yéen ñu jéem a saytu Cheikh amat Bamba ak jaar-jaaram ak dundinam ak jëfinam loolu def nañ ko fii conclusion yaa ngi ci suñu ordinateur yemuñu ci mooy exposition yemuñu ci incha allah rabbi danañ ko yaatal danañ ko yaatal ci kattanu borom bi ba mu dugg ci école yi nga xam ne léegi li li seen ci waxoon léegi ne ku tedd ki dañ ko umpale ci école yi te jaaduwul réew yu mag yi boo fa demee la ñu jiital mooy seeni héros waaye fii dëgg-dëgg fel la héros yi joxuñu leen seen gëdd dëgg-dëgg fel la te loolu lu ñu war a xoolaat la ndax euh, ab royukaay di tubaab di way référence dafa baax ci génération yi ak génération yi ñëw te gisuma kenn ku ëpp euh, euh, euh, référence Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul gannaaw bu ma sante Serigne Mourtala bu leen fàtte ne Serigne ñaari at yoo xam ne jiite na ko màggal gi foog ñu di ko wax di temps en temps ndax lu rëy ngi noonu doomu suñ Tuubaa ci boppam jóge mbitim réew nañu maa ngi ñëw maa koy jiite ñun ñi ñëw koy jëli indi ko ba fii mu jiite moom mii moo taxawal màggal gi jàkka ji boo ko taxawal kon nag yooyu ay ay ay poñ la yoo xam ne ci histoire màggal gi lu am solo ah loo xam ne ci base histoire boobu mun nañ yaakaar ne ëllëg dana gën a baax incha allah rabbi. vous êtes le vice-président du kuréel euh, li nga wax tabarkalla dégg nañ ko waaye événement yi toll nii euh, mën nga cee dégg lu ne waaye sëñ Tuubaa moom kenn rek la li mu liggéeyal yàlla it ñëpp xam nañ ko. auzu billahi min sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim. saddit lisaani nawir janaani safi amaani wasil baraay. noo ngi sant mbooloo mi fi teew ñëpp noo ngi nuyu ñëpp noonu leen di ziar waaye noo ngi ziar kilifa gu mag gi di Cheikh Matar Diouf euh, di ko ziar mbokki yëpp ni mu ko waxee ci turu daayira yëpp waaye rawatina daayira wakkaana ak bi nga xam ni moom la Cheikh Matar Diouf jiite euh, bu ab toolam bu muy liggéeyal sëñ Touba ba sëñ Touba faye ko lii tey Cheikh Matar liggéey boobu Serigne Saliou moo ko liggéeyloo ci ndigalal Serigne Saliou it la ko la ko jotee di ko def waaye ku fi nekkal Serigne tubaa Cheikh Matar ànd na ak yow ci liggéey boobu ku fi nekkal sëriñ tubaa Cheikh Matar liggéeyal na la ci liggéey bii nga xam ni mooy Wakana Haqqan bu jotaay bi guddoon nag ñu mën cee wax lu baree bari ci jëflante yu mu def ak Serigne Saliou ndax damaa dégg léegi euh, ministre bi wax la wax bu am solo def ne Cheikh Matar mi day làqu waaye kilifa la dëgg la dafa jël lépp jënd ko ak taalibe Serigne Touba léppi addunaam lépp daraja ju ko yàlla may ci àdduna jëndee ko taalibe Serigne Touba nga xam ni euh, toog ci suuf moo ko gën a toog ci kaw daa daana fekk sëriñ bi ca foofa nga xam ni ca fenêtre ya euh, sëriñ bi di ko xamal ni Maxtaar de fii nga ma fekk fekk naa fi sëñ Mourou Moussa fekk sëñ Fallou ba taay te na possibilité ngir fekk sëriñ ba ca biir ndax loolu yàlla mayoon na ko waaye nag fekkoon sëriñ bi foofa moo ko defoon rek ngir coobare boppam nekk te loolu mbégteeb sëriñ bi la ba sëriñ Saliou ne ko Maxtaar fii nga may fekk fekk toog wut fekk naa fi sëñ Mourou Moussa fekk sëñ Fallou ba taay kon ak taalibe da ko gën a lu mu am bis bii nag buñ ko dee waxtaan doon waxtaan ki ko jiite mooy kan ki ko jiite mooy ki sëriñ ki nga xam dafa jeex ci sëñ tubaa jël boppam jox sëñ tubaa ba sëñ tubaa faye ko lii dafa am bis Cheikh Matar eh, liggéey boobu muy liggéeyal sëriñ mu dem ba mu yàgg na xelam dem ci sant sëñ tubaa mu ma Bécaye damaa bëgg nga xalaatal ma nu waxtaan ci nan laay amee bis bu rëy bu ma sant sëñ tubaa bis boo xam ni damay woo kilifay àdduna bi nguur gi waaye damay woo sang si muy sëriñ si waaye damay woo samay xariti bopp yi ngir sant sëriñ Touba waaye xool li ko Serigne Touba fayee tey bis bi mboolem ku bëggoon a woo ci diir bi mu koy wax diir bu gàtt la Serigne Touba daal koy wuy ci lii kon lii nga xam ne moom la ko Serigne Touba dénk Serigne si ci bëggam googu bëggam gam bëggoon ngir sant sëñ Touba la ko Serigne Touba wuy ci bisam bii te lii may wax ku ko dégg Cheikh Matar euh, Cheikh am gi sëñ Saliou ko njëkk a wax ndax bu ko daan bind bataaxal sax Cheikh Matar la ci daan bind kon waaye nag seex ki la jënd jënde ko ak taalu bi li ma wax rek ak taalu bi gën a lu mu am dafa jël seex ki jënde ko ak taalu lool loolu la ko sëñ tubaa faye tey loolu nag daf ñuy jàngal mu murid yëpp ni li am solo rek mooy doon taalu bi sëñ tubaa ci biir taalu bi sëñ gi la nga bëgg di ko mébéte ko xalaat ci la ko sëñ di defe ak bëggam gu nekk ci xolam la ko sëñ di fay te li ko ko may mooy doon taalu bi sëñ tubaa kon na leen wóor ni liggéey bii ki ko jiite taalu bi sëñ tubaa la boo xam sëñ tubaa rek la moo ko ñor waaye sëñ tubaa rek lay xenc yàlla na nu sëriñ bi joolee jàppale euh, sunu kàddu mën na gën a gudd waaye ginnaaw noo ngi yëkkati sunu kàddu ay xéewalam di sotti ko noo ngi noo ngi jeex foofu kaddu. tey ñu ngi boo jox kàddu gi nag koo xam ni kenn dootu ko laaj ci réew bu ko neexoon nekk ci leneen waaye dafa ni sëñ Tuubaa ma ñor moom lay liggéey sëñ Tuubaa doon léppam doon référence mu Cheikh Makhtar yi Foka nag Cheikh Makhtar ñu ngi ma nag kuréelu. fàttali ko julli géej gi ne mu ngi dégg man bis bu rëy mooy julli gii sëñ Tuubaa julloon dans l'océan Atlantique ñu jox la kàddu gi nga am loo mën a wax aouzu billahi wax ni daal wax dëgg yàlla sama xol dafa fees sama xol dafa sedd ci li ñu fi wax yëpp waaye loolu yëpp nag dama koy dama koy jàppe soññe danaa danaa fas yéene gën a laxasaayu gën a góorgóor pour mériter li ngeen wax yépp incha allahu rabbi ah, di leen di leen woo di gërëm ñëpp membre yëpp rek di leen gërëm yéen ñëpp ci liggéey bi dëgg yàlla di gërëm kuréel bi gërëm vice président gërëm secretaire général yéen ñëpp rek maa ngi leen di sant leen gërëm ndax lii bu ma mënee lu ma mën rek yéen ñi yéen a tax ndax fu ma geesu gis leen di di sonj ñëpp nag di sonj senegal yëpp di sonj umma islamique yëpp ñoo wax ni bis bi ndigal jib na sëñ Muntaxa xalif général di murid jox nañu ndigal dem nañ fa bërki démb ma ànd ak délégation bu takku sëñ Ousmane Xuma mii ànd ak ñun moo xam ne moo féetee Touba ànd ak sëñ Mamadou Ndiaye ànd ak sëñ Dan njaay mii dëgg yàlla sëñ Mountakha recevoir ñu bu baax a baax a baax te ñëpp xam nañ ne fi mu toll nii mu ngi ñaanal àdduna mu mm. ngi ñaanal julliti ndax xam nga bu ñuy wax ne sëñ bi dafa tëju waaye nit ñi dañoo xamul rek ñoom tëjuwuñu pour noppalu dañuy ñaanal àdduna te ñëpp gis nañ ko gis nañ firnde bi gis ngeen àdduna bi yëpp Sénégal yëpp ngi taw macha allah tabarakallah kon nag ñaan yàlla sëñ Mountakha yàgg fi te wér yeesal nañu ndigal bi nañu laxasaayu ñun ñëpp te jëm ci liggéey bi ñu ngi woo ñëpp di woo autorités yi di leen sant ñoom itam autorité yi ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen gërëm ndax gis ngeen CRD bi ñu def bërki démb gis ngeen CDD bi tey wax dëgg yàlla état du Sénégal wax dëgg yàlla def na li mu war a def ci ñun def na sax lu ko ëpp te bis bu jot ñu laaj lu ëpp ñu ñëw ñoom itam ñu ngi leen sant di sant jigéen ñi. Mm-hmm. sant jigéen ñi soxna Soda. ak uh, jigéen ñi soxna soxna yaa ngi nii représenté leen ñu ngi nii toog ñoom ay jàmbaar lañu ñoom duñu boole boolewuñu ci wax ñun góor yi rek ñun ñooy wax di yëngal waaye ñoom ñoom ñu ngi ca liggéey uh, wax dëgg yàlla ñoom itam ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen wax ne yëf yi ñëw na kon nag ñun ñëpp nañ laxasaayu rek te nekk ci. asalaamaaleykum jërëjëf macha allah